waaw Balla Gaye dafa nekk nit koo xam ni yàllaa ko bindee noonu nañ ko ko nangul rek lu muy def day fës nitu yàlla yàllaa koy def noonu am na ñoo xam dañuy am ay milliards luñ def kenn du ko yëg parce que nit ñee leen xamul nit ñee leen bëggul Balla Gaye nag nit ñee ko bëgg ba nga xam ni buy tey bu doon jik bu sarax sax bu koy def fii maanaam rey benn xar rek ni day saraxe àdduna bi yëpp ñëw. mais coow loolu la coow loolu. waaw yàlla moo ko def noonu yàlla mooy may coow du sangu bayre du dara. gis nañu démb lu ñaari tali def na fi benn beneen acte bu mel noonu. ñaari tali ñaari tali woowuñu kenn dañoo ñëw làqatu guddi lañ fa dem ay une heure du matin ñëpp génn nit ñi ni leen di yee sax du la ko xam yàlla moo mooy def noonu ci nit. bilaay yàlla mooy def noonu nag ci nit. tey bëgg nañu xam nag relation guy gi. astafurlah relation Balla Gaye 2 ak Boucher naka la demee te ku ne xam nga ni sa moom sa waay la. waaw mais loolu moom naataable wuñ ko moo tax tey fu ma toog fësal ko ndax man moom ku ne xam na ni sama nit moom ah deex fësal dund fësal te ku ma bëgg rek na ma bàyyi samay nit te fu ma toog ci àddina bu dee ci wàllu làmb fu ma toog Balla Gaye fay gën bu dee ci wàllu musique fu ma toog Pape Diouf fay gën ndax loolu la yàlla bindee nag. te loolu laa xam damaa xamul nëbbatoo kii ay yii ñi ñi di def nii bëggantoog bëgg kii tey su bëgg a bëgg ke noonu loolu xaw ma. yow foo toog ci wàllum làmb Balla Gaye moo la gën a loo gis. lu ma gis ana woon ba nga jàpp mbaax ak bëgg bi mu ma bëgg ak yéen a jëm ma yéen a jàmm ak mbokk bi ñu bokk ak yàlla bi ñu boole ak mag ak rakk bi ñu ne moo tax ma bëggal ko sama bopp. du dara du ay def def du leen nañ bàyyi yooyu def def ak ay nit ci boo koy bëgg danga koy bëgg te yàlla tax li gën a neex ci àdduna mooy nga jàpp nit te yàlla tax barke alxuraanu karim la la cay fekk sax doo ko xam. tey mu woote tey mu woote fii yan surprise ñu mën xaar. yu bari yu neex caat sekkan fi da koy yëngal dina ko way way yu neex way la yow yu neex way liiru jaan way yu neex way ma way yu neex way ceer way Aziz Ala Ndiaye ak Baye Ndiaye Mouhamed Silla ah nga ne

luñ ci mën dafa mel ne jëmm jee waral loolu noonu jëmmu Balla Gaye loolu du ci du ci jëmmu Balla Gaye yàlla la yàlla mooy gis nit ne kii fu mu taxaw dañ koy xam dañ koy gis noonu la demee mais bouger ak social bi bouger social bi ngay def bi ba Sénégal yi yëpp estimé si loolu lan moo indi idée boobu si social bi kay am na tànk social baa ngi raam mais da ngeen may ñaanal da ngay am waaw soo leen ma ñaanalee dina gën a yaatu man aw ma mhm. samay nit ñu baax ñooy am ma dem proposer leen far force ñu def ko parce que ñoom tamit loolu lañuy bëgg man soo gisee tey du ma ànd ak koo xam ne déggalu ma mooy ci li may dox la doxuma ci lu ñàkk fayda ñaanu leen dara du ma ne kenn may ma fukki dërëm laaj leen sama benn nit bu mës a taxaw ne man ñaan naa ko fukki dërëm mosul am ci àdduna barke alxuraanu karim billaahi wallaahi tallaahi du ma ñaan du ma taxaw kenn ndax li may am maa koy am may sama bopp mais am naa droit gis benn nit bu sonn ma ne la kat doom day dimbalil kii ndax dina la arranger ëllëg ndax loo ko defal rek nit la am naa ci droit te noonu laay doxee. parce que si li ñu ñëw ba léegi gis nañu ki mel ni Sakho Dior génn na wax na ba nii Boucher maa ngi koy gërëm maa ngi koy sant ngir jàppale bi nga xamante ni mi ngi koy jàppale sama famille bi nga xamante ni bàyyi naa leen ginnaaw mu nekk acte bi nga xamante ni acte bu ñëpp di saluer la ana tey lan moo waral ngay def loolu Sakho Dior sa mbokk ko mën jàppale nga koy jàppale wala nu mu demee noonu. Sakho Dior moom du ma ci moom maa ngi koy ñaanal yàlla may ko wér ak gudd fan li ci des yàlla baax na nañ seetaan rek li ma ko yéene dina mat fat force incha allahu rabbi neex yàlla. fii la ëppee mënu mënu dem parce que dañu gis anniversaire bi Uba dafa leen dafa leen sponsorisé lan moo waral loolu. Uba kan restaurant Uba waaw. c'est Uba loolu digganteem ak Balla Gaye la c'est Uba digganteem ak Balla Gaye la loolu bu Balla Gaye wàccee ngeen wax ko ko man maa ngi gërëm Mouhamed Silla bu baax ci anniversaire bi maa ngi gërëm Aziz Ala Ndiaye bu baax ci anniversaire bi. maa ngi leen di gërëm yéen ñi fi teew maa ngi gërëm Omar Waly mi nga xam ni mooy solal Balla Gaye 2 Waly Fassane maa ngi moom lu Balla Gaye sol moo ko jox waaw mais Uba nag diggante Uba dibiteri ak Balla Gaye laaj leen ko Balla Gaye. amul benn problème kontaan nañ si yow. ba legi ñu ngi fi nga xamanteni moy anniversaire bu Balla gay 2 han ah. tay neena la ku nekk jëmm ju nekk mën nga fi gis ngir Balla gay 2 mo toll ni ñu mel waye aussi tamit ñi nga xamanteni dañuy and ak Balla gay 2 dañuy and ak mom ci deug ak fayda ak sutura mo wara tay seen tank tay fi ki ñu togol tamit kenn dootu nga présenter muy Oumar Wali Fassène borom ñew yu bax yi dañ cey nuyu rek laaj ko quelques témoignages ci ki nga xamanteni mo fi war tay di Balla gay 2 Oumar wu ñu ma ngi leen nuyu di leen jaar bu baax baax wa Thiès Dakar vraiment li ngeen di def liggéey bu doy war bu am solo ci rew mi vraiment ma ngi leen nuyu bu baax baax Omar lan moo waral tey sa taxawaay tey fii nga xamante ni mooy anniversaire Balla Gaye waaw euh, tey su ma ñëwee fii dama fi war a ñëw ndax Omar sama mag la sama xarit la avant tout li ko jiitu may sama fans la man maa ko doon supporté di jóge ba géejawaay di daw ba golf di jóge fu sori di daw ba golf géejawaay pour ñëw supporté si Omar mu nekk sama fans ma bëgg ko teg te yàlla rek tax jamono di dox may jàng métier di ñaw di liggéey muy liggéey muy liggéey may liggéey jamono di dox ba gis limay def mu nexo mu mu ak sama ben xarit bu ñuy wax Badara maa ngi koy nuyu de passage mu niko ki la ñawal li il faut nga indil mako Badara woo ma téléphone kat maa lay jaar baa ci jamm Badara ni ma il faut nga ñew parce que mbeur mo la soxla ma ko amul ben problème kok su won xaju gudi damay ñew ma def ko ak xol bu rafet dem fa Omar nek nit ku yaatu nit ku bax nit ku am yeg yeg ci doom adama nit ku meuna a ndaw buy jog Omar wax yi ma wax ba tay ji ni mo waral sama tank yi tay lamu la gën nessu Omar. Omar li ma neex ci mom moy yorul xolu mbër. gis na mbeur bu ne dajana ak mbeur bu ne. yorul xolu mbër maanaam mais képp kuy tak ngemb la la wax Omar mo la gën mako ko wax. lamu tax wax ko. parce que Omar mom la gis mbeur bo xamni ni da ngay wax ak moom ñaari ñaari cadeau mu joy tour xewal té lolu yombul ci jamono bi ak fi rew mi tollu avant Omar man Mustafa Gueye laa doon supporté face ndax sama yaay koku la mos kony bëgg ñom ñaara bokkon koñ face may supporté Moustapha Gueye ba yalla def euh, Omar ñew ñi ngi fi daan titero nan leen ñom ñoy ay mbeur ñom Omar jël leen daan leen ma japp ki moy mbeur kon. bu nit toogee waxal ko lu baax bu nit demee waxal ko lu baax Omar li ma xam ci moom mooy jikkoom yàlla moo ko defar mu am jikko boo xam te ni yorul xolu mbër Omar mun na jël cinq cinq mille francs moom la yore laas ci poosam mu yëkkati ko jox la ko yow ba pare dig la suba kooku ku dul mbër ku dul ku amul xol bu rafet mënoo ko. mu mel ni kon Omar geste bi nga xamante ni daf koy wane ci dëkk bi. loolu lay dund moom lay dund ah, au fond. au fond du li muy wan ci wane ci télé bi lu ko raw sax lay dund. Omar boo demee këram façon li la muy sol loolu lay jox ay ay xaritam ñu koy sol la muy def loolu lay jox ay nitam ñu koy def kon loolu yombul du lu ndaw vraiment maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ni bis bi suñu teewaay tey mënut woon a ñàkk di leen jox rendez-vous di jaje incha allah rabi ak Dakar ak Thiey Dakar. incha allah waaw Balla euh, li waral ñëpp mooy xarit la suma mag la suma frère bu baax eh, baax loolu te bëgguñu. ñun waa Géejawaay lu ñu xewle rek ah day bàyyi itam yëpp ñëw looloo tax moom it mu xewle ñu bàyyi suñuy itam yëpp ñëw macha allah. waaw mooy li ma la wax rek suma mag la Balla suma mag la di mag ju baax di ku neex a dëkk la te ku ne xam na ni tamit référence la biir Géejawaay donc ñun ñëpp dañoo nekk xale màgg ci kanamam mu def lu ne Géejawaay ñu ñun ñu ñu ñu ñu màgg ci wetam euh, donc bu ñu xewlee mu def ci dooleem. jël jëmmam indi looloo tax nag moom tey moo xewle te nit amul lu misam ñu bàyyi fii te ñun tamit ñëwal ko yaa Balla Gaye 2 ci biir làmb muy doomu Géejawaay nga dëkk yow nga dëkk Géejawaay tey mu wone nga bàyyi daal di ñëw en tant que musicien noo ko jàngatee. waaw waaw dama fee ñëw a tant que rakam tey ñëw ma fi en tant que musicien dama fee ñëw a tant que rakam moom it mu nekk suma mag ma xewle grand mu ñëw man tamit tey ma ñëw wuy si ko a tant que waaw kontaan naa ci yow. merci beaucoup merci beaucoup jaajëf